reculer. Eh, Mbaye jóg reculer. monsieur le président pourquoi. xaaral mais eh, gars yi toog leen toog leen. Eh, yoro yoro yoro gars yi ñool ñool voilà ko déggee euh, président. gars yi déglu xew-xew bi c'est xew-xew bi vrai mooy lii nga xam ni moo am di remaniement gouvernement bi loolu mooy xew-xew bi mais nag dafa am lenn lu ñëw dal ci suñu kaw dal ci kaw Sénégal muy génn àdduna professeur Iba Der Thiam comme nag am nañu opportunité mën a jaale askan wi yëpp jaale njabootam jaale ay jegeñaaleem jaale ñi mu àndaloon ci wàllu politique ak ñi mu doon liggéeyandool ci université bi jaale waa Sénégal yëpp loolu vraiment di ko ñaanal yàlla mu dajale ko ak njëgalam ak yërmandeem xare ko aljanna yi gën a kawe di leen sant vraiment